kii ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen remercier ci présence bi et di remercier son excellence madame Fatoumata Bintou Rassoul Correa suñu ambassadeur bi nekk Brasilia te ëmb ñu fii ci Argentine aussi ci ñëwam bi mu ñëw fii te mu nekk c'est pas la première fois dañoo def exprès sax ndax fii lañ ko recevoir on ci même année bi et eh, aussi di remercier ki nga xamante ne mooy son excellence Kaba nga xam ne aussi moom dafa jóg jóg Sénégal ñëw ba fii ngir seet ñu ngir nemmeekuñu donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter la bien bienvenue fii ci Argentine di leen di wax nag ñi nga xamante ñoo fi teew mooy représentant communauté bi ndax ñu ngi wax ni ay plus de 4000 sénégalais lañ mais yéen ñi fi nekk ak ñun ñi fi nekk ñëpp ñun ñoo représenté mbooloo mi fi nekk yépp ñi fi toog fii ci banc bi nag ay quelques représentant lañ rek mais mbir mi ñun ñëpp ñoo koy doxal muy ay représentation association bi muy association des résidents sénégalais en Argentine muy représentant maanaam Badou Ndiaye muy représenté bokk ci association bi ci mbooloo mi bokk aussi ci daara murit yi waa daara Tidiane aussi maanaam ñoom tamit teew nañ fi sëñ Amadou Ba yónnee na li nga xamante ne mooy ay ndawam yonnee kàddoom di nuyu ambassadeur sëñ Yankooba def la même chose yonne ay représentant di nuyu ambassadeur aussi di jéeglu ci ñàkk ñëw bi nga xamante ne def nañ ko ndax dañoo sori fii Baay Faal yeeg laayeen yeeg tariqa yi yëpp a ngi fi présent jigéen yaa ngi fi fépp foo xamante ñu nga fa ñoom aussi ñu ngi fiy nekk ñoom aussi daba mi yu nekk ci table bi moom moo leen représenté chrétiens yi ak ñëpp ñoo xamante ne sax même bu ñu amul tariqa ñoom ñu ngi fi te ñoom ñëpp ñoo bokk maanaam ñu bokk Sénégal ñoom ñoo yor li nga xamante mooy communauté bi te lépp luñ fi def lépp luñ fi réussir wala lépp loo xamante ne suñu échec la ñun ñëpp ñoo koy bokk suñu doyen Aba aussi nekk fi nekk suñu mag maanaam nekk kenn koo xam ne moo ñuy conseil moom aussi nekkal ñu fi à chaque fois lépp luñ fiy def mu bokk ko ak ñun ñu koy jéeglu sax ci cadeau yi nga xamante ne ñu ngi koy jël ci présence am sans moom maanaam mu kii ko donc ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ci seen présence di leen gërëm nag aussi surtout yéen jigéen ñi ñu bàyyi seen ndaw ñëpp ñi nga xamante ne bàyyi neen seen liggéey mais yaakaar nañ ne bés bi jar na ko ndax suñuy autorité ñoo jóge Sénégal ñëw fii ngir déglu ñu ñëw fi aussi pour jox ñu ay conseils jox ñu lépp li nga xamante ne mooy peut-être lu bari loo xam ne xamuñ ko woon te soxla ko jëlee ci ñun aussi loo xam ne ñoom soxla nañ ko pour mun ñoo jàppale mun ñoo dimbale ci yenn affaires yoo xamante ne dañ koy soxla donc macha allah di remercier Argentine Touba Argentine TV aussi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy jox dox ci wàllu média yi ndax seen liggéey rafet na. rafet nañ lépp lu ñuy def ndax ñoom aussi lépp lu ñu véhiculé rek peut-être mën nañ ñàkk a egg fi nga xamante ne moom la war a egg. donc mbooloo bi yëpp ñu ngi leen di remercier di nuyu aussi ñi nga xamante ni mooy suñu compatriotes yi nekk même ay Brésil ay foofu yëpp ndax lépp liggéey bi ñoo ko bokk mu ñoom Cheikh Ndiaye ñoom Ahmed ñëpp ñu leen di nuyu te di leen féliciter ci lépp li nga xamante ne mooy dox ji ak jéego yëpp ñuy def ensemble. su ko defee nag mu wax leen ni association bi aussi yemul fii dafa am ay yëpp représentation yoo xamante ne nekkuñu fii. muy délégué yi nga xam ne ñoo nekk ko Mar de Plata ñoom Akim ñi nekk ay Tukumaan comme ñoom Lahat ay Mendoza kom ñoom Akim ñoom Murit ñi nekk ay Neuquén ñoom Bajkan ñi nekk ay Santa Fe ay Rosario ay Moro ay La Plata ñëpp lañu représenté fii maanaam dëkk bi daal lépp lu ñuy def ñun ñëpp ñoo ko bokk ci ñun ñëpp ñoo koy defandoo te bépp Sénégalais fu mu nekk daal yaa ngi représenté wu ci association bi yaa ngi représenté wu ci mbooloo gannaaw loolu ñu ngi ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñoom la fi ñoom ci del soit di rendre un vibrant hommage suñu compatriote boo xamante ne bu fi nekkoon tey mu toog ñun fii muy suñu secretaire général et Babacar di leen wax ne rek tey lu ndaw loo xam ne bëgg nañ leen ko defal résumé monsieur le directeur muy situation yu bëri yoo xam ne sénégalais yi peut-être dañuy gis ne dañuy ñëw fii ne ay sénégalais yu bëri ñu ngi fiy dee wala ñu ngi leen di rey te amul fu ñu mujj muy am ay situation yeneen yu bëri yoo xamante ne aussi dafay xew ay problème mu sénégalais. situation yoo xam ne des fois dañ koy informer suñu ambassade wala suñu autorité ñu koy yëg di ci def ay jéego te ñu sax aussi duñu yëg loolu dañuy jëkki-jëkki gis ay résultats moo tax tey son excellence li ñuy def rek mooy pour maanaam wàññi wax ji maanaam wax ji bañ bëri ndax affaire bi dafa gudd lii lañ préparé pour jébal leen muy li nga xamante ne moom la communauté bi liggéey association bi di ko def ak mbooloo mi ak seen revendication ñu def ko ci dossier boobu résumé ko daal di leen ko jox su ko defee boo leen ko liiree rek day gën a neexal li nga xamante ne mooy liggéey bi donc ñoo leen ko def mu nekk dossier boo xam ne c'est sous couvert de son excellence madame Fatoumata Bintou Rassoul partie bu am intéressant ci beneen côté bi ñoom déjà amoon nañ ko donc ñu delloo leen koo jox leneen la ca topp nag mooy surtout lu gën a am solo mooy li jëm ci wàllu dee yi dee yi nga xamante ne dafa nekkul mort naturelle te mbooloo mu bëri balaa ñuy dugg ci discours yi yaakaar ne peut-être amul jéego yuñ ciy def ndax peut-être ñàkk xam la boo déggee ma indi lii tey nag nu mu diise yépp pour ngeen xam ne lépp lu fi xew ñu ngi koy tab ñu ngi ciy def ay jéego te am na ay résultats benn ci dee yi nga xamante ne moo fi njëkk am muy dew njawarñaa en 2011 dossier bi mu ngi fii dinaa ko génne ngeen xool ko ngeen xam ne dañ koo topp ba ki nga xamante moo ko rey ñu tëj ko à perpétuité donc lool rek lañ ci mën koor bi dem Sénégal maanaam topp ko topp yooyu bu ñu koy def dañ koy def ngir ki ko rey wala ki jëf ci moom jëf ju ñaaw jooju suba bu génnee du ko xalaataat wala sax moom fa ma nekk ci kaso ba du ko defaat donc loolu moom lañ ciy jublu Kaaw Massar ba aussi dossier mu ngi fii maanaam au moins 200 pages première. deux cent pages dossier bi mu ngi fii maanaam ñu xam affaire bi au moins ci yan côté wala fan la jóge te ñu ngi koy topp ba léegi ndax boobu tëjagul beneen dossier bi ci topp yaakaar naa famille mu ngi fi aussi mu kaaw maam Adama dossier bi aussi mu ngi fii plus de trois cent pages yoo xamante ne jël nañ ko ci dossier ki nga xamante ne kenn ñi nga xamante ne ñoom lañu yaakaar ne ñoo ko faat tëj nañ ko jàpp nañ ko bu ci fin du mois bi lañ ko yóbbu war a yóbbu xuisiyo keneen ki kay la ñuy war a gum te loolu bokk na ci li nga xamante ni moo gën a tax corps bi mënagul génn ndax corps bi preuve la pour li nga xamante ni mooy investigation bi donc loolu mooy décès yi nga xamante ni ñoo fi am décès walu lëj maanaam nit maanaam am na troisième c'est-à-dire keneen koo xam ne maanaam am na relation ci gaañu gaañu boobu yeneen gaañu gaañu yi walu naturel la beneen gaañu gaañu bi nga xamante ne moo fi am maanaam dee bi fi am te amul ku ko rey sinon que dafa am question judiciaire moo deew Fallou Ndiaye kooku aussi chaque jour yaakaar naa famille am war nañ fee mën a nekk ñu ngi tey dox suba incha allah ci semaine bi mardi passé laa fa jóge ci justice xuy bi xuy juge bi nee na fiscal bi opposé wu ci yóbbu koor bi donc ñoom duñ ci opposé wu suba lañ ñu sitaat pour mu mën a dem 7 heures du matin mën a xool ba xam ndax dinañu autoriser pour mu dem ndax dem nañ def nañ autopsie bi def nañ seen investigation ba gis nañ ne gisuñ ci dara lu ñaaw donc mën nañ ko autoriser te loolu yoon la justice la faw ñu topp li nga xamante ne moo ci war c'est que ñun nag lu ñu amal importance des fois mooy yóbbu koor mais dafa am loo xam ne ñun mënuñ koo tëb faw ñu topp ko ndax ñoom aussi bu fekkoon ne bu sénégalais dayee ñoom duñ ko faaleen dañuy naan jël leen seen mbir nag mu yó ngeen yóbbu ko def ñuy métti donc bu fekkee ne moom daf leen a jaral ñoom ñu investigar def ay enquête pour xam li fu mu jógee lu ko waral donc ñun sax dañ cee waroon a sant yàlla te xam ne au moins bëgg nañoo gis justice bëgg nañoo xool li nga xamante ne moo waral suñu mbokk yi di dee ci yeneen anam yi donc ñun ñoo leen waroon a demander loolu sax avant ñoom ñu koy def moo tax nag ñun ñu leen ci accompagner à chaque fois pour am justice pour xam lépp lii fu mu jógee ak naka la demee donc loolu laa leen a bëggoon na résumer su ko defee rek wax ji ñu bon koo clôturer ci côté boobu monsieur le ministre xam naa guddi gi dina dina dina gudd lool <laughs> waaye nag mënuñoo arrêté tant que waxuñu leen ne mbooloo mu bëri na ay mébét yu bëri yoo xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy def xam na lu bëri li ñu soxla ci gouvernement euh, Sénégal am na ñu bëri yoo xamante ne soxla nañ ko maanaam bu ndimbal bu gouvernement bu Sénégal mais avant ñuy egg ci revendication yi dañoo bëgg a valoriser li nga xamante ne moom la ñu am ba pare c'est-à-dire jëf ji ñu defal c'est à tey année yi nga xamante ne mooy anne bi wala daaw laa bëgg a wax sax yaakaar naa deux missions passeport ñëw nañ fi. te lu ñuy joytu la à chaque fois te loolu dañ cee war a sant yàlla te suñu ambassadeur dox ci gis nañ aussi jéego yu muy dox pour maanaam yeneen passeport maanaam yeneen mission di mën di fi gën di ñëw de manière beaucoup plus fréquente te ñu ngi koy ñaanal yàlla mu ngeen cee am succès ndax bu su ko defee suñu faveur lay doon ñu ngi gis ne aussi madame l'ambassadeur comme ni ma leen ko waxee léegi ñëw na fi visiter ñu consulam ñëw na fi defal ñu carte consulaire gis nañ ci aussi ne maanaam document yu bëri yu ñuy soxla dañuy jéem a def lu tuut maanaam pour ñu am ko mais terewul nag am na lu bëri loo xamante ne aussi ba léegi ñu ngi koy bëgg maanaam mu ci ñu ciy jàpp muy lu mel ni facilitation légalisation yi muy mel ni aussi wallu accès projet yu bëri yoo xamante ne aussi immigré yi wala diaspora sénégalaise war na koo am muy mel ni aussi maanaam jàpp ci côté et eh, gestion wala maanaam au moins côté infrastructure wala ay conseil ci li nga xamante ne maanaam comme ñu mel ni waaye daara murit nga xam ne am nañ kër suñ Touba wala au moins ñu ngi ciy taxaw suba bu ñu demee ba war koo taxawal mu nekk loo xam ne nguur bi dina ci teg loxo maanaam jàppale leen gunge leen ci wala gunge ni ci ñun ñëpp pour kër googu du doon kër suñ Touba kese mais day doon kër goo xamante ne. ab daara lay doon école lay doon centre culturel lay doon centre la boo xamante ne doom ñi sénégalais yi fiy juddu yëpp dinañ mën a dem di fa jànge di di jàngale aussi tubaab yi loo xamante ne aussi dinañu mën a amal importance insertion fii ci dëkk bi donc loolu aussi ñu ngi ciy xaar loxoom nguur bi aussi pour mu jàpp ci au moins ci orientation ñu ngi aussi ñaan nguuru Sénégal mu jàppale ñu ci li nga xamante ne mooy implantation benn genre bureau consulaire fii ci dëkk bi en attendant ñu am benn représentation diplomatique boo xam ne day gën a taxaw ñu liggéey bi ñuy def mais nag laaj nag pour aussi maanaam ñu gën a gaawal seen liggéey aussi loolu aussi yaakaar naa ne am nañ ci droit te loolu bëgg nañ ko gouvernement wu Sénégal jéem a taxaw pour ñu am fi représentation diplomatique ndax def ñuy facilité lu bëri mbooloo mi bëri na fi revendication yi bëri na xale yi ñu ngi fiy juddoo te dafa am loo xam ne dañ koo war a jàng ci suñu culture dafa am loo xam ne dañ ko war a jàng ci suñu aada ñu bëri dañuy soxla ay projet bëgg a def lu bëri mais nag représentation consulaire bu amul rek wala bu jegewut ci teritoire argentine def ñuy difficulté lu bëri moo tax maa ñaan bu baax a baax ngeen jéem a yëgalee suñu président li nga xamante mooy suñu situation ci côté boobu monsieur le président et eh, monsieur son excellence ambassadeur dama bëgg parole bi mbooloo mi jël ko après moo tax man damay yem ci li nga xamante ne mooy dossier bi ngeen kii ko su ko defee ñu gàttal wax ji mais xam leen ne revendication yu bëri yoo xamante ne war nañ koo mën a def déjà mu ngi ci dossier mais terewut kenn ku nekk ci yéen dina am possibilité aussi pour maanaam détailler loolu donc euh, son excellence ñu ngi jéglu ci kaddu yu yu xaw a gudd yi di gërëm gaa yi rek di leen sant te di leen wax ne mbir bés bi seen bés la ñu remercier ñëpp di jéem a def lu tout pour daal lépp jaar yoon te xam ne ku ñëw rek taxaw jàkkaarloog yow def laa bëgg a déglu pour jox la benn solution donc yal na ci yàlla ànd jërëjëf ma bàyyi leen ak madame la ambassadeur